mise à la vente d'une Mercedes classe E 6 cylindres, carburant, essence, full option. Année 2016, intérieur cuir. Aucun défaut signalé. Contact

coow li bëri na noo gisee combat coow li moom il faut mu mel noonu. ndaxte boo xoolee Boy Niang dafa dugg dafa dugg géejewaay daanaka amu fa defet yaakaar naa ñoom ñëpp la daan. waaw daan na fa defet ba pare ñëw daan rakku Balla Gaye muy ak la manière quoi. Mhm. moo tax nag combat bi bëri bur yu nii quoi. Mhm. bu neex lay doon nag. Mhm. waaw. noo ñaari mbëri état de forme yi. ñaari mbëri bon gis naa leen nii tele bi quoi. mais loolu aussi mënoo cee gisee mbër ak. xam nga mbeur aussi mën nga gis yaram bi rafet mhm. mais ba xam xol bi xol bi baax na gis naa euh, boña ak euh, ak la dëgër seen combat amoon na mas bu kii mais kero dafa gaaw a jeexal waaw kero kero kero dafa gaaw a jeexal loolu aussi lu mbëri li war di suuraal boo jëlee mas war nga def benn façon physique boo xam ni di nga mën a tenir lu yàgg waaw mhm. mais euh, seen premier face à face kii di boy ërtal Balla Gaye 2 mayu ko jàmm mayu ko salaam te dañ ko doon gis si Balla Gaye 2 ñu gis tey boña la ko koy def mais Balla ne teg loolu. waaw ah, Balla xam nga Balla moo daan def yooyu. Mm-hmm. moo nekkoon xale léegi mooy mooy mag. da koo bàyyi ak rek. te ragal naa it noonu lay demee. waaw da koy da mm-hmm. ah, laa yaakaar. ndax boña tamit moom noonu la war a ñëwee ci signature contrat yi par rapport ak ñaar defet yi mu jógee. signature moom pour jaay jaay làmb ji la quoi. waa yooyu da ci day xoromal làmb ji quoi. des fois nit seetaan signature bi rek dina tax mu dem esaat ndax wuy kii li mu ko wax nii kii ñii bu ñu dajee dina mel ni dina mooy tax rek mu dem esaat. Mhm. kon nag yooyu yooyu loolu moom nañuy xam ni loolu signature la nañuy jaay làmb ji yooyu la quoi waaw. xam nga qualité Balla Gaye mm, waaw kenn ku ci ne am loo ma xam ci yow. waaw lan xam ci Boy Niang. xam naa ne day naxaate. waaw. Oh. <laughs> bukki lay def comme bukki. <laughs> <laughs> day day mel ni ku la ragal. ragal di laal di daw di. waaw waaw day moom day naxaate. loolu nekk ci moom. waaw loolu boo nekk ci moom day naxaate. waaw mais Balla Gaye aussi. Mhm. boo Niang aussi am na benn problème ci mbër moo xam ne day taxaw adversaire boo xam ne day taxaw. day taxaw di ko xaar moom it am na problème boobu. moom Boy Niang avantage am mooy ku koy jël si. waaw mais boo taxawee moom day am problème. waaw. te dañuy dafa bëgg moom arbitre ne pirip la jëm. waaw moom vraiment ragal ne bi yoon dana na tekk ba xool lu lu waajur yi andi. mais avantage am aussi mooy dem jàpp. moom Balla Gaye waaw kon taxaw di xaar booy. Eh, taxaw di xaar warul taxaw di xeex di benn benn. waaw. lu ñaa moo ko ci man moo ko ci man waaw ci moo ko ci benn benn. benn benn xeex. Mm. waaw moo ko ci man mm. waaw. ñoo ñaan loxo bi dafa gaaw. waaw. Mm. dana doo ko gis. waaw doo gis gis ko doo gis ko bi télé bi <laughs> yéen koy woon. ñoo la ko daan ñu gis Balla ñu bëri ñaan Balla est-ce que Balla bi fa nekkoon mi ngi fu ak ba léegi par rapport ak combat bi nga xam tam jóge na ko diggante ma Gris Bordeaux tey mu jël xale bi nga xam tam bi ñu ne xale bu saf sàpp la. waaw dina defarwaat. waaw parce que moo Gris yi. bon mën nañu ko ci bañ a juger ci combat bi. mën na indiwaat beneen forme Balla moom yàgg yàgg na di mel noonu. mu mel benn melokaan bi beneen combat mu defarwaat. waaw mais combat bi moo ne moo Gris moom am na lu des physiquement quoi. mais yaakaar naa. dana ci jëlee leçon ak ak waaw ak encadrement am. Mhm. dina defaraat bu bu ñëwaatee da ngeen gis beneen Balla. waaw ndax tamit euh, ñu ngi rappelé diggante moom Modou bu mujj bi. ñu bëri ñu ne Balla nekkatu ko nekkatu fi te mënatu ko. ñu gis bi mu ñëwee ni mu def ak moom. waaye mooy li ma la wax sànq rek. nee naa la boo ko jiyee ci baa bu ñu weesu wala di def erreur mën na defaraat. boo xoolee diggante moom ak Modou. Mhm. mais ma gis ne sa Balla Modou la gën a respecté ci mbër yi.

waaw loolu mi ngi ci moom xam naa ne moom combat bi moom dana ci defaraat bu baax a baax bu ñëwee ni ngeen ni ngay nañ gisaat beneen Balla mhm. Balla lan la war a sóor ci Boy Niang ndax cool yi bari nañu ne booy bi moo ko mën <laughs> Balla avantage am mooy mooy bëre waaw jàpp fexe jàpp. waaw jàpp it mooy forum. mais nee nga euh, kii la yor noo noo ko waxee <laughs> la. xaw ma gilee. xam nga bëre bëgg yi <laughs> bëre taxaw kooku baa dina neex a jàpp. ah fexe rek. xam nga laa sooree dugg tamit laa bu naxante la daal. naxante rek. Mhm. am li nga bëgg. Mhm. waaw li ma wax sànq stratégie la rek. ba am li nga bëgg. kon fooru Balla jàpp la. Balla moom ñëpp Sénégal yi xam nañ ne jàpp la. Mhm. waaw moom bu jàppee day bëre. waaw am ci biir làmb faiblesse am faiblesse am ah bala bariwul faiblesse de mais daal xam naa ne xeex bi des na daal. waaw mais xeex bi des na mais nag mbër musu ko dóoma de te ñim ñim dee ñëpp ñu ne ñoo daax xeex ci làmb yu dóoruñu ko. mën na dóor mais mënul mënul xeex <laughs> mën a dóor mun doxee. Ah, loolu am na ci moom. ñëwee ci xeex kon ñoom ñaar moo moo ak booy ah. moom booy ñaar man. pour man sama gis-gis avantage moo avancé tuuti tuuti ci xeex bi mhm. waaw. ci wàllu bëre bi nag. ci wàllu bëre bi. ku dàq bëre ñoom ku dàq bëre man Balla laa jox favori. bu dee ci bëre bi. Mhm. waaw bu dee la woon la newoon ci moom mu ngi ci moom ba tey. xam nga mën nga jugé mbir ca la woon. mu ñëwul won ni waaw loolu loolu day am mais la newoon moom bu dee mi ngi ci moom ba léegi moo dàq bëre waaw euh, Boy Niang tamit lu mu war a sóor ci Balla Gaye jàpp bi rek ñoom ñaar daal kenn ku ci ne Boy Niang jàpp jàppante bi arrangé wu ko Balla aussi taxaw di xeex arrangé wu ko hmm. waaw kii arrangé wu ko voilà Balla mun a fexe jàpp hmm. boo ñaa aussi na fexe ba bu ko baax la jàpp. waaw. boo ñaa mën a may na ko une minute est-ce que mën a jeexee ci koom. loolu waxu waxu waxu la waxu waxu làmb rek mais combat mënul mënul jeexee ci une minute. Hmm. du gaaw de. du gaaw déedéet. nekk combat bu bu gaaw. mën mënut a gaaw. kon faaw ñu bëri ay 5 sax mën naa nekk mais une minute moom mënu koo nekk moom. mënut a nekk une minute. waaw mënut hmm. gaawee noonu. bëgg a jëlaat roi des arènes bi. waaw ci ci Boy Niang la gën a diisee ndax. Mhm. Boy Niang ba mu duggee bi ba léegi daanagu daanagu fa mbër. bëri na fa ak Lac de Guiers bëri na ak Tapha Tine te gis ngeen li mu fa jëlee. Mhm. teg leen na ñaari defet. Mhm. moom it bu amaatee beneen defet bi day nekk day day nekk beneen poro du baax ci moom. moo tax xam naa ci moom lay gën a diis. waaw. Lamine mën na jeexee ci kaw. yaakaaruma ko nag. non non yaakaar yaakaaru moom yaakaaruma ne kaw kaw mën na ci jeexee. yaakaaruma ko. maanaam hmm. li ma yaakaar daal ci bëri lay jeex. lay jeexee kaw moom yaakaaruma ko. mën na am nag accident am kaawoo am. waaw mais yaakaaruma ko ci. Hmm. waaw. kon nag jàpp ne bu ñu ñëw runkum daj ku nekk jàpp sa ngëm morom rek jël dafa am. waaw waaw loolu laa yaakaar. Hmm. bés bu ñu jàppoon ne moom yaakaar naa bëri dana fa am. yaakaar naa jël dina fa am. waaw. combat bi mantaal wala doole wala gàllaaj. waaw ah, mental bi ci la bokk nag man man sama sama analyse moom lu ma ci boolee gàllaaj. waaw man gàllaaj moom. mais mantaal bu baax. waaw baax na ci trop. mental bu baax. am stratégie am staff bu baax. bu lay wax nii ngay def nii ngay def waaw. fi mu ko jeexee la du ma ñëw ba ñëw ba kër Modou Lo te du ma laaj ci ana Modou ci la la nekk. lu war a mi ngi fi mi ngi mi ngi fi de. waaw mi ngi si jàmm bu baax a baax. Euh, gars yi ne kañ la fas yéene pare pour dem déposer certificat guérison. xam naa loolu yàggatul. Hmm. waaw loolu yàggatul. ñu ngi ciy waxtaan waaw ñu ngi ciy waxtaan loolu yàggatul mi ngi entraîné. Hmm. waaw. au cas où lu mënta am ci diggante Ama Baldé Gris Bordeaux ndax Modou parewaat na pour bëre Ama Baldé loolu kay ñoom dinañu signé contrat. Hmm. waaw yenn saa dégg naan combat bi amatul ak ah, ñoom ñu signé contrat lekk xaalisu jàmbur dañ koy bëre waaw ah, ragal naa daal 2023 bi yaakaar naa dinañ ko bëre. incha allah bu ne ak lu mën am ci waaw ak lu mën am nañu bëre. Hmm. waaw. Modou na. waaw pare na. Hmm. gars ñu ci moom léegi père. lu tax loolu. la Modou mbër la la ba léegi. Hmm. Ah, tax muy bàyyi yor la bëre ba fii di to di bëreeg say mag bëreeg say mag dem ba bëreeg say morom di bëreeg say say rakk sax ngay bàyyi déedéet. déedéet yaa ñëw daa bëgg yóbbaale courant bi de. Ah, non du eh. bi liggéey la nag yéen it. Hmm. waaw liggéey liggéey la de. waaw kon nga ni fi ñu toll ci lu yàggul dara dina déposer certificat de guérison ah, pour ñu préparer combat. ci lu yàggul dara dina déposer certificat de guérison mu des ci promoteur bi. ban dara lay jàpp waaw. Hmm. waaw ndax kon euh, ñu bëri ñu ne diggante bi mënu fa woon am combat comme temps bi mu toog nii bëriwul. non comme comme comme que xam nga moom li tax bëriwul ak Ama ba léegi ci moom la ci Modou Lo waaw Ama ah, moom droit may na ko moom mu bëree ji. waaw mais mayu ko moom mii. Modou Lo moment bi euh, contrat yi mayu ko mu bëree keneen ku Ama Baldé. waaw waaw. ko parce que ci moom la moom moo tax ba léegi combat moom moo amoon blessure. ba léegi nii moo tax combat bi amul. Mhm. waaw bi nga xamoon 2006 2008 2012 ba Modou bi 2022 bi ndax li nga xamoon ci moom mii ci moom ba léegi. ba léegi mi ngi ci moom. amul dara lu ci ci wàññeeku. Mm. ba léegi lim newoon ci moom. ba ñu naan ko xarañ. ba léegi mi ngi fi. bi muy ñëw tudd Modou dem ba ci biir beneen tur daf ko muy xarañ. ba léegi looloo ngi fi. Hmm. waaw xarañ moom ba léegi. Ah, ah, waaw waaw. Hmm. magawul booy dara ay. dinañ nag diggante bi ne xale yi ne màgg nañ de. xale. xale yi ci biir fii. ñoom ay Ama Baldé Boy Niang Siteu. ñooñu ay moromam lañ. ay moromam waaw koo magee deux ans. Hmm. ay morom mais li li bëgg bëgg tamit nit ñi leer seen nopp mooy Modou Lo ndax dina bëre kii di Boy Niang ah bu leen làmb boolee ñu bëri kay. waaw amul dara leen lii amul dara lu leen lii waaw bu leen làmb boolee dañuy bëri. Euh, diggante mag Siteu nag parce que tamit gis nañ diggante bi am na lu fi xewoon. mais cool yu bëri woon. waaw diggante mag Siteu. bu ci buñ ci bu ci nit ñi di wax. waaw ah, rak doomu baayam. doomu baayam doomu baayam. doomu baayu waaw rakk muuru lay denc. Hmm, rakk yaayam aussi yaayu doom yaayu jëkkëru. Euh, yaayu doom bàyyi Siteu sama mbokk yaay la ñoom fàddeel lañ dëkk mm. ma ne ñoom làmb leen boole yaakaar bokk mm-hmm. yaakaar naa làmb du leen boole mm. mm-hmm. kon daal ñu doon jàpp ni kat Modou ak Siteu war nañ mën a bëre foofu làmb gëmoonu ma yaa moom lu ñu bëre Siteu ay supporter am a ngi fi di ndax ay rakku jabar rakku jabaru doom bàyyi a ngi fi jabaru doom bàyyi a ngi fi kon nag mbokk duggul daal waaw. mais man làmb ji dafa jeex ba ci suba gi ma xëy dem kër Siteu mais ñoom ñëpp ñu bëri ñu ne loolu Lo lañ bëgg a bëri. loolu Siteu waxu ko loolu supporters yi ñooy. wax ko mais supporters ak ñi ko jege ñi koy sotti galaas ñoom ko wax. supporters yi ñooy wax yooyu ñooñu ay supporters lañ. Euh. waaw mais Siteu waxu ko. <laughs> Euh. déedéet déedéet Siteu Siteu du wax loolu. déedéet ñoom xam nga supporters rek ñoom kenn ku ci ne mm-hmm. comme que muuru dafa àndoon ak Papa loolu tax ñuy waxee noonu quoi mais euh, bés bu ñu laajee Siteu Siteu du wax loolu. Mm-hmm. Mm-hmm. mais 100 pour cent bi euh, Papa Sow bi taxoon ñu créé ko à 100 pour cent wala boog jàmbaar bi tax moo ma quitté est que du am lu tamit lu wàññi ci biir parcelle. waaw ah, mais loolu am na ay champion yoo fa nekk am na boo yoo fa nekk yoo xam ne <laughs> bon làmb la rek mën nañ jël place am. waaw mm-hmm. ah, ñoom ñoom Franc fa lañ nekk. ñoom Garga 2 ñoom a Sock ñoom ñëpp a fa. kon kay amul problème. bàyyi moom mënul yàq dara mënul yàq dara moom day ñëw rek dolli encadré leen encadré booy rek. Mm. waaw noonu la rek mu jëmmal leen ko waaw du ci yàq dara. père bëgg naa ci yow. waaw maa gën a bëgg yow. kon gars yi day leen naan ci biir nag gis ngeen Casamance. vert blanc bi ah. mu ñëw mu sponsor sama booy bi petit loolu. waaw waaw waaw loolu boobu maa ngi koy ñaan boog. waa Casamance ñëw leen boog sponsorisé booy yi. waaw petit lo ak Sey Jàmbaar. Sey Jàmbaar waaw. bëgg naa ci yow. waaw maa la gën a bëgg di kontaan waa di leen kontaane yéen bu baax a baax ngeen nuyul ma démbale. incha allah. ndewoy ndewoy ndewoy alayka tiim kaam mangala yaaran yaa